yokk gi nag ñëpp di ko joy ndox dina ñàkk ci week bi ci lu toll ci ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay quartier ci diwaanu Ndakaaru yéenekaay bi di Libération ne séddaleem ndox mi dina sooxe ci bisug tay gi rawatina ci week bi libe waaye seen o tey la fa ne bu dul baadoo la rek kenn xamul lu mu doon yéenekaay bi di Libération ne liggéeykat ya fa ne du doon doomu Sénégal ñoom de doxandeem yi ñoo leen ëpp salaire 0,3 pour cent ci personnel ba ñoom dañuy fayeku ci lu toll ci téeméer ba jël fukk ak benn waa FONSIS def nañu lépp ngir wañ loxoy chaise waaye chaise danoo dëgër bopp di tubaab yooyu le mel na ku ñu moom ñëw ci réew mi rek di baddaxal ma daal di def lu leen neex ñoom waa seen o ndox amul ndox baaxul ndox seer na teg ci nag alal jëcca seen o yëpp ñoom ñoo koy fayee loolu mooy doole doxul jàmm ñëw sa réew ba noppi di la jaay doole